xasida seeni tudd yàlla barkib Cheikh Ibrahim Fall laa ilaha fa laa ilaha illallah Mustafa laa ilaha illallah laa ilaha illallah Mustafa la ilaha illallah la ilaha illallah fa la ilaha illallah. maa leen nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant di sant waa ginnaaw gépp nag koñ Escale fii Serigne Ndiasse Seck nekk ñu leen yëgal bis bu rëy Serigne Ndiasse Seck moo ko woote fii ci ginnaaw raay muy tombeeg le 18. tombeeg samedi sëñ Ndiassé nee na bis bi mi ngi commencé 10 heures bu xëyee nag dañuy xëy jàng wàccee kaamir bu ñu wàccee kaamir après 9 heures ci guddi ñun ñëpp nag bëgg na ñëpp génn si nu dugg ci baas bi. sikar si nag kan moo koy si sikar sëriñ Mor Ndioba Ndiaye ak sëriñ Alsane Gueye ak sëriñ Bay Thiam ñooy sikar guddi gi sëñ Ndiassé nag nee mi ngi sant Serigne Cheikh mbooj Touba Fall nee na Serigne Cheikh Mbodj lay defal fii cant fii te bëgg na ñëpp daal koo xam ne daal ab Baye Fall nga dib be gëm maam Cheikh Ibra Fall gëm Serigne Touba nee naa samedi nee na Serigne Dia Seck nee na yéen ñëpp woon na leen fi kon nag noo ngi ñaan yàlla di barke Mamadou Mbodj barke Cheikh Ibra Fall ma nga xam ne Mamadou Mbodj seek Ibra Fall la sonaloon ba tey jii ay sëtam nekk fi ba tey jii sëtam bi nekk fi ginnaaw raay fii ci koñu SK wax dëgg yàlla taxawal fi bis tey di sant maamam ja Mamadou Mbodj nee na yéen ñëpp woo na leen fi te bëggul tamit kenn des kon nag noo ngi ñaan yàlla suñu borom yeggal na ci ak jàmm ci barke Mamadou Mbodj barke Cheikh Ibra Fall mi nga xam ne tey jii moo waral bis bi. ki woote bi nag Mamadou Mbodj ay maam ndax maam moo njëkk jox Cheikh Ibra Fall oto fu masaana dem maam lay àndal kon nag maa ngi ñaan yàlla suñu borom yeggal na ci ak jàmm ci barke Cheikh Ibra Fall barke sa maam ju tedd ja. jërëjëf waa ginnaaw raay ñëpp kontaan nañ ci yow yàlla na sa taxawaay yàgg jërëjëf. bisimilah rahmaani rahim ñu leen di siyaare yéen ñëpp ci kenn ku ne ci turam ak santam di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal fanu gudd ak wér-gu-yaram yéen ñëpp di nuyu nag euh, ki waral bis muy sunu sëriñ di sëñ Cheikh Mbodj Touba Fall ñu ngi koy nuyu baax baax di ko siyaar di ko jox wàcc waayam di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér di ko ñaanal tawféex baax a baax parce que lii lépp amee tey moom moo tax rek mu am kon nag kooku kenn mënu koo fay ñu ngi koy siyaare di ko ñaanal tawféex ak gudd fan ak wér di nuyu tamit euh, maanaam sëñ Cheikh Jëm Fall di ko siyaare baax a baax mooy xalifatul Baye Fall di ko ñaanal suñu borom kàttanal ko yàggal ko ba lépp lu bëgg liggéeyal muy maam muy maam siyaare Fall mu am ko ni mu ko bëggee di nuyu tamit maanaam ki nga xamante nii moo fi nekkal sëñ Tuubaa muy sëñ Muntaxa di ko siyaare baax a baax a baax di ko jox wàccuwaayam di ko di ko ñaanal suñu borom kàttanal ko ba lépp lu bëgg a liggéeyal maamam muy sëñ Tuubaa am ko ni mu ko bëggee di nuyu tamit euh, maanaam sunu waa dëkk di Thiénaba di leen siyaare baax a baax a baax di seen wàccuwaay di nuyu di jiital ci nuyo bi xalifa bi muy muy Baye Cheikh Tidiane Seck di ko siyaare baax a baax di ko jox wàccuwaayam di nuyu tamit ñi nga xamante ni ñu la dëkkal fii ci ginnaaw raay euh, bi ci da ci nuyo bi ki nga xamante ni mooy suñu yaay di maire jëmbëgay ñu ngi koy siyaare baax a baax ak suñu yaay maire Kiné bu ñu waxee ñooñu rek wax ne ñëpp di nuyu waa quartier bi di nuyu waa gox bi di leen siyaare baax a baax a baax di xam ne daal bis bi daal dañu war a wax yëpp daanaka euh, maanaam euh, sëñ Mor Ndioba Ndiaye mi wax na ko ak maanaam sëñ maanaam Gora Thiam wax nañ lépp lees rek mooy maanaam maanaam euh, la gën a leeral rek comme ça li ko waral ak tamit tax mu am mooy dañ ci am ndigalu sëriñ bi am ci digalu waajur moo tax ñu def ko yàgg dañ koo bëgg na yàgg koo taxaw ñu ñaan daal képp koo xam daal yaa ngi bëggee seerefal wala sëñ Tuubaa ak tamit maanaam maanaam maanaam bu mën a doon suñu mbokk Ceneba yi waa Layeen fépp rek ñu leen di woo ci bis bi ñëw sant nañu suñu maam muy sëñ Mourou Mbodj waaw parce que comme première édition la bu ñu soyoon àddina génn si ñu daal koy def parce que dañu tam ndigalu sëriñ bi euh, li ci am nag yàlla na yàlla def ci bokk ko askan wi yëpp parce que ñun ay ndaw dañoo dañoo mënuñu dara amuñu dara mais daanaka euh, maanaam ndimbalu sëriñ bi ak suñuy waajur rek moo ñu moo ñu dimbali moo ñu kàttanal mooy ku suñu papa ñu ngi koy siyaare baax a baax ak suñu yaay ni amuñu fayam kon nag daal bis bi daal ñu ngi ciy woo tamit autorité yëpp nga xam ne nekk rek muy Pikine gii di tamit euh, feneen ci gox yi ku mel ni waa Tëngéej ji ñu leen di siyaare baax a baax a baax ñu ngi woo tamit suñu mag bu góor bi nga xamante ni moo nekk fii dakaar mooy suñu kilifa muy Cheikh Ndiaye ñu ngi koy woo di woo soxnaam di ko di woo waa koñ boobu ñëpp rek waa CFA yëpp bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilah rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi diin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin gina siraatal mustaqima siraatal lazina an'amta xayril mahdubi alayhim wala daali amin waaw maa ngi leen di nuyu yéen bokk jullit yëpp bàyyiwuma kenn maa ngi leen di sant gi leen gërëm di ñëw nag ci bisu njaase bi di ñaan yàlla yàlla yóbbuñ ceeg jàmm ak salaam te yàlla nañ ci am ndam yàlla nañ sëñ Tuubaa wàllu bu baax a baax a baax a baax ba lii ñu mébét yëpp yàlla jàppaliñ ci wax dëgg yàlla man daal mënuma sax wax mais damay gërëm daal maa ngi sant bu baax bàyyiwuñ kenn nag man la maire jëmb gay sa dëkk sama kër ndax ki ne ndooy mooy suñu mag ci këram la nekkoon ki ne toxu mu ñëw fii sama kër nekk feeg man ñu nekk fi nekkin bu rafet wax dëgg yàlla kon maa ngi ñaan bisam bii daal bàyyiwuñu kenn pikin way ginnaaw raay fépp fépp nit nekk rek ñu ngi lay woo wax dëgg yàlla daal murit ak tiijaan ak laayeen ak xaadir bàyyiwuñu kenn bis bi daal bëgg nañ mu alaa daaw me bëgg nañu ñëpp ñëw ci baas bi bu ñu loo ba pare sañ sa ba jekk ànd ak ñëpp dem ci baas bi taxawu njaasa ba mu ba mu baax wala ñuy ñaan yàlla yal nañ ko yàlla may yal nañ ci yàlla may ndam lu kawe kawe suñu njott ci barki sëñ Touba kontaan nañ trop. ci yàlla la ilaha illallah fa njaga yaaram maam seera faal aboori la ilaha illallah ci yàlla la ilaha illallah faal njaga yaaram maam seera faal aboori la ilaha illallah la faal لا إله إلا الله لا إله إلا الله فال لا إله إلا الله Seex Ibra doole loo faal saxal noo faal njaga yaaram man seera faal aboori jaal jaam ñi doo seeni moroom Seex Moodu Mbooj borom leer yeew jaam ñi doo seeni morom mooy maami Sëriñ Seex Mbooj góor yàlla gaañeey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 waltuf bina waqawina wa kullana wa hab lana usnal xitaami rabbina wasaleen ala nabi wasalami wa aqabihi xaajatatan kulli muslimi barkib sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibra